di masawu également personnel hôpital bi madame la directrice ak tout le personnel ci s'est Pastef ak ci s'est taxawaay Madame le ministre daf ñu sant ñu ñëw fii xool situation bi nemmeeku askan bi masawu Khalif général mais également ànd Fréram, frère am collègue monsieur Abdoulaye Diouf Sarr pour bokk tiis bi ak askan bi yëpp. jaale yi xam ne xale yooyu tey ñooñu walax njaanu la dañu ñaan tiis bii mu yem fi lu métti la ba tax président de la république mission ba mu nekkoon union africaine mu gàttal ko mais itam décret de deuil national yi ci fa dafa rek ñu delloo lépp itam bu jëlee dañuy nangu muñ mais gën a góorgóorlu gën a taxaw pour Sénégal ñu gën ko tabax jéego yu reuy amna ci hôpital bi tay dañ koy cité en référence tay bo gissé ñi fi joggé ci dëkk yu bëri lañ joggé parce que service bii am fi bu am solo la bu bu baax la donc ni ko ministre de la santé wax itam dañu xaar ba rapport bi génn bu ko défé ñu mëna saytu mun li ci war ci dogal pour gëna dolel structure bi ñu def ko ci suñu wal maran bi daf ñu sant bu ñu némé ko li fi xew ba pare masawu askan wi jaale ko sëriñ bi nous xool nan lañ gëna mëna gungé njabot yi ndax leen dal lu met la lu tiss la même personne hôpital bi leen dal lu met le tiss la dañuy laaj bi leen sur le plan psychosocial sur le plan moral même sur le plan économique motax délégation bi mu yebal ma jité ko ma ngi ci and ak soxna ci Cissé xuma nga xam ne mooy général agent de la case de tout petit, moo yor tout tank yi mandi ci ak madame euh, Ndeye Lo bi nga xam ne yoré service social ci ministère bi ñu andi ak tam ñaar ci action direction yu mag yi nga xam ñoo yore walu njabot gi ak ñu yore walu karange xalé yi liñ fi jàngat yépp nag dinañ ko def rapport pour lépp lu ñu war ci taxawaay ñu ànd ko ci solidarité gouvernementale ci ni ko président digle pour ñu taxaw njabot gi gën a taxaw système santé bi gën a taxaw askan bi yépp ñu leen sant leen gërëm wasalaam loolu wax naa ko tey ñëwuñu pour di jël ay dogal dañ ñëw pour massawu njaboot gi massawu askan bi massawu Sénégal yëpp ndax li dal Sénégal lu métti la massawu également xalif général de Tidianes gis nañ taxawaay bi ñu ci am boobu ba léegi ci ñaan ci soññe gis nañ taxawaay bi itam délégation bi ñëw ànd ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr xalif général dafa yónnee ndawam mu ñëw ànd ak ñun ñu dolli ñaan gis nañ taxawaay bi rafet la maître Diop si am na ko ñu koy rafetlu ñu ñaan Sénégal yalla yemal fi li yalla a le yi comme le président santané ci ñetti national bi ñu ñaan pour Sénégal jëm kanam doli ñaan pour jamm am Sénégal doli ñaan pour njaboot yi yalla et gouvernement lepp war ci taxaway inshallah ministère bi ci loolu lay dox dinañ lekkolo ci soldat gouvernemental pour taxaw njaboot bi taxaw askan bi